ngir yaatal lépp lu jëm ci liggéey média ci àdduna wërngal këpp rawatina ci réewum Sénégal ba ci Touba seen site internet bi di Mouride Info moo leen jagleel émission bu ñuy wax Yeewu Yewi Yeewu Yewi di jataay boo xamante ne bii daañ ci dalal boroom xam-xam waxtaane ci fànn gi nga xamante ne bii fa la xam-xamam jëm ngir mën cee gindi askan wi yeewi leen ci ba lépp loo xamante ne bii tënkoon na leen ci wàllu xalaat wala ak gindeeku ñu mën koo am ci jataay boobu Yeewu nekk da ngeen ko am ci site internet Mourides. mbokk ñu tàmm dañu seen site internet mourides point info ak leerlu point com ñoo dellu leen émission yeewi yeewi tey ñu am gan gu ñu duppee Serigne Mbacké Mara di président président association sans frontières ñu nar waxtaan ak mom ci mbir yi nga xamné mo soxal askan wi ginaaw lolu dañu jox Serigne Mbacké Mara mu présenté wu. alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh euh, ñoo ngi euh, sante yalla di di ci yonent bi di Cheikh Khadim Euh, di ñaan itam ñi ñuy déglu ñëpp ñu fekk leen ci jàmm te yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp ci barke ya iyyaka yow mu kulli leen mu jiib antal mu jiib wala karim nga jërëjëf sëriñ bi lu ñu def lu dul euh, waxtaan wi suñu laaj bu njëkk mooy gis nañ ne tey madam la ministre de la santé Eva Marie Coll ñëwoon na Touba ñu bëggoon a xam ba xam yow ñu visite boobu noo ko gisee. waaw man de visite boobu ni ma ko gisee ci ministère de la santé lu ñu rafetlu la ndax dañoo toll ci jamono yoo xam ne nii ñëpp gis nañ ne am na benn maladie bu ñuy wax Ebola boo xam ne mi ngi lëmbee réew mi. maladie boobu aussi tiital na askan wi tiital na Afrique tiital na adduna bépp mu nekk maladie boo xam ne itam nag yombul ndax li tax yombul moo de maladie boo xam ne nii Europe ñemewu ko Amérique ñemewu ko Afrique ñemewu ko Sénégal mënu ko ñeme ñun nag du sax dañ ko ragal ndax jàpp nañ ne sëriñ bi li ñaan yàlla mën na ci mën nañ ci musal ba loola mën na fee bañ accès waaye nag du tee comme nun ay nit lañ rek euh, di def jëfi nit di wax waxi nit hmm. lu mel noonu su amee danañ ci àddu wax ci li nga xam ne lañ ci xalaat. ndax ouverture gis nañ récemment président de la république monsieur Macky Sall wax na ci. blocage yi ñu bloqué frontière yi gis nañ ne amna ay responsable yi nga xamné ko jotoon nañ def ay rencontre ak yenn notable pour que ouverture frontière yi ñu bloqué ko ba après gàmmu té gis nañ ne jël nañ ci beneen décision bu xamné

te su màggal bi pare ñépp a jóge fi ànd ak wër ànd ak diine bu gën a dëgër te fekk jàmm fi nga xam ni foofu lañ jóge ma leen di wax ne seen taxawaayu tey bii muy relais yi muy bàjjanu gox yi muy waa réseau yi yéen ñépp gis naa seen liggéey te xam naa ne li ngeen fi nekk ak liggéey bi ngeen sumb bi pare ak li ngeen nar a def sama xel dal na li ngeen wax nag mu nekk li nga xam ne xëy na bëggoon ngeen ñu dimbale leen si noté nañ yépp te su neexee yàlla dinañ si am luñ si def ma bëgg leen wax ne Touba mënuñu lu dul lu ñu mën yëpp ñu def ko ci ndax dëkk la boo xam ni dëkku diine la te diine moom ku ko am di nga set di nga am wër gu yaram te itam di nga fexe ba nga xam ni di nga liggéey jëmale sa dëkk kanam loolu moo tax may kontaan di ñëw fii ci Touba. may gërëm itam ñi ministère de la santé muy médecin chef de région médecin chef yi nga hôpital yi médecin chef de district infirmier chef de poste ñépp ñi nga xamni suma togué Dakar itam sama dal ndax ñu ngi fi ngi leen di le di leen di leen loo leen def itam maa ngi koy seet nag bu baax wóolu leen si te xam naa ne lu baax ngeen di def ñuy ñaan yàlla mu dimbale ñu li ñu bëgg yépp ci Touba mën a am te ñu li ñu bëgg itam ci Sénégal mën a am may gërëm président de la république Macky Sall mi nga xam ne moom moo ma jox doom doom tànk boo xam ni dana tax ma mën a ñëw fii mën a nekk ci dimbal askan bi ci mbirum wër gu yaram su neexee yàlla moom it li mu bëggal Sénégal yàlla na am ndax senegal mën a jëm kanam may gërëm ñépp nag di ñaan yàlla di ko ñaanaat feebar yi nga xam ne bëgguñu mu dugg Sénégal muy Ebola mu dimbale ñu si te di ñaan itam li xew ci gine Libéria ak Sierra Leone mu jóge fa

ba ci Touba site internet bi di Info Molen len émission bu ñu wax ah, waaw xam nga tax ñu xeeb discours bi mooy def ministère de la santé kenn ku ne xam na ne euh, Ebola euh, euh, lu ko soxal la. Mm-hmm. mais Touba dafa nekk fu fu sensible foo xam ne nii mbir lu mu la soxal soxal soo fi ñëwee. Mm-hmm. na nga bëgg a waxee doo ko wax. Mm-hmm. parce que ñun on a une association bu tudd Soldats sans frontières di jëflanteeg SOS consommateur bi nga xam ne ma soxna kan mais dama soxna kan moo ko moo ko yor. donc ñun am nañ ay ay loo xam ne noo ngi koy yëg ci dëkk bi. loo xam ne ni peut-être xëy na ñu bari duñ ko yëg. yëg nañ ne si autorité yi nga xam ne mooy autorité yi gën a mag ci dëkk bi. Hmm. am na ci ñoom du ñëpp. Hmm. mais am na ci ñu xalaatoon sax ne waaw mais Ebola bi heure bi mu ñëw ak période bi mu ñëw. Hmm. est ce que duñ def de tele sorte que ñu waxtaan ak sëñ bi pour xool ba xam maa màggal Tuubaa ñu koy reporté. loolu am na. ginnaaw loolu nag ñun yëg nañ ko peut être ñoom wax jooju ñëmuñu ko wax foofu donc su ministre de la santé ñëwee Touba ni mu waxee xeet naa ndax képp koo xam ne nii man xawma ci autorité yi xalaat loolu la xawma ci ci bokku ci mais su bokkut ci autorité yi ko xalaat yi dem ñi ko doon xalaat peut être xëy na am na ci ñoo xam ne nii xam na ne ñu ngi koy xalaat hmm. donc ni waxee Touba man néew na ci man hmm. ndax li tax mu néew ci man mooy képp kenn ku ne xam na ne Ebola lu lu lu garaaw la hmm. kenn ku ne xam na ne màggalu Touba itam kenn ku di murit ku jàpp ne wareef na ko mooy récolté amul waaye màggal gi xam nga am na nu ñu ko daan màggale bu njëkk ndax bu njëkk màggal gi euh, dañ koo indi Touba di ko màggal mais bu njëkk daa nañ ko màggale neneen lu bokkul noonu mm-hmm. kon au lieu de dire de reporter loolu yaakaar naa c'est un trop mais waroon nañoo mën a xalaat ne waaye mais est-ce duñu wax ak sëñ bi ba nga xam ne les pays touchés par l'Ebola mu mel ne Sierra Leone Guinée mm-hmm. ñu waxtaan ak sëriñ bi ba sëriñ bi jox ndigalul ñooñee fa nekk ca réew mooma ñu màggale ci seen fañ nekk loolu daf ñuy ci Touba ne mmh. waa Touba tax ñu ubbi frontière yi. Mmh. parce que dèjà CEDEAO wax na nañu ubbi frontière yi. Mmh. màggal mi ngi ñëw mais léegi mën nañoo làqu ci kaw. màggalu Touba kat kenn mu a tëj frontières yi ba tax ñu tijji fo kenn mënu koo tëj ba tax ñu tijji frontières yi te fekk booba du màggalu Touba moo tax ñu tijji frontières yi mais ndigalul CEDEAO la ñuy doxal. Mm-hmm. donc ñun ñi nga xam état bi lañ te nit ci dëkk bi xalaat yooyu aussi war nañ ci xalaat. Mm-hmm. parce dama jàpp ne même suñ dee ubbi frontières yi moom ñun association solidarité sans frontières avec euh, la collaboration de euh, SOS consommateurs nous sommes contre. Mm-hmm.

profité ci dañoo bëgg nit ñi màggal si tax ñu ubbi frontières yi su boobaa cas boobu noonu lañ ko yem parce que dañu naan màggalu Touba ubbi gi ñu ubbi woon frontières yi moo tax kon cas bi dugg fi te pourtant mën naa am supposons que cas bi dugg na fi avant màggalu Touba donc dama yaakaar loolu responsabilité boo xam ne ñun buur ñu ko nangu waruñu ko accepter donc ouverture des frontières nous sommes nous, nous, nous disons soldats sans frontières avec consommateurs euh, SOS consommateurs non à l'ouverture des frontières entre le Sénégal et la Guinée et la Guinée du Mali et ensuite dama jàppoon ne war nañu mën a envisager sax diinaa la màggal tëj suñu frontière ak Mali pour que rek suñu demee ba di ko ubbi nag xam ne dañuy dañuy dañuy wax waxu CEDEAO kooku màggal gi moom bañ ci mais ñun nous sommes contre l'ouverture des frontières avant et après le Magal de Touba kon bu la déggee bu baax da nga bëgg wax ne que kon la menace qui nous guette bi nga xam ne mooy Ebola la l'ouverture des frontières est une menace pour la population de Touba. mais la population de Touba Sénégal mais nag li ma il se peut qu'avant 18 safar parce que Ebola day voyagé mais su fi duggee avant 18 safar nous, kan moon wax ne dafay dugg avant 18 safar ou après 18 safar. C'est sûr que y fekkee dafay dugg avant se Safar a un après malgré tout moo tax mu fait fekk c'est faux C'est après la y le le donc je pense que dans daal sama sama position mes position association soldats sans frontières ak SOS consommateur ou nous disons non à l'ouverture des frontières. Il y a xam ne euh, yow mi a xam ne yaa nekk ci association sans frontières ak euh, yeneen structures yi nga xam que ci pour ça ak yelleef doomu aadama ci ngeen di dox est ce que jël et ay jéego waxtaan ak quoi comité d'organisation organisation pour expliquer.

parce que xam nga doo feebar rek ñu xam ne da nga feebar ñu jox la ordonnance nga fay ordonnance bi te fekk yow mi nga xam ne yaay fay ordonnance bi te été en contact avec la malade te itam amoon nga ñàkk ci sa yaram 10 000 boobu nga ko fayee mais mën naa am 10 000 boobu day voyagé ba ñëw Dakar man nag je me pose la question ministère de la santé ak ñi nga xam ne ay techniciens lañ est ce que xaalis bi nga xam ne nii ki Ebola da ko am wala mbokk mi nga xam ne il était en contact avec moom mu ñàkk mu ñëw Dakar est ce que 10 millions yi ku nekk Dakar soo ko jotee mën nga cee jot loolu bokkul question la boo xam ne man waaw ndax loolu buñ dee xool ci rebondance économique bu pays ci la ci la ko waa BCEAO di xamee parce que pays bu nekk am nga sa code CFA bu nga xam ne que bu ñëwaatee ci biir ba banque ma banque bi ci la ñuy xam sa taux de rebondance kon mooy de firndeel li nga wax sànq mais na nañ tamit ñi ngi jëm màggal suba buñ si yàlla àndee ci la ouverture colloque bi est-ce que des mesures strictes mesure yoo yoo xam ne mooy organisme de de santé est-ce que mettre nañ ko en place. waaw xam nga loolu aussi euh, ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci santé muy ki nekk ci kaw muy euh, monsieur euh, man j'avais une question à lui poser mooy damay dégg toujours ñaan par exemple centre de traitement et centre d'isolement mais fan la centre de traitement yi nekk ak centre d'isolement ensuite est-ce que centre de traitement bi ak centre d'isolement bi dañ koy def le même lien. dama yaakaar ne war nañu mën a teg ay jéego jéego yi moo di centre de traitement bi ak centre d' isolement bi war nañoo mën a nekk même lieu suñ nekkee même lieu est de traitement def ko ci hôpital ak affiliance Touba est ce que wóor na lu mel centre bi nga def ko fa wala nga def ko euh, euh, hôpital Modou Fawzeyni wala nga def ko par exemple hôpital Sëñ Mbacke Madina est ce exemple xoolal bi nga xam ne ni nekk euh, soo jëmee yoonu Taïf ci après après qui bi comment dire am kër kam mais faut voir nañu ko mën réquisitionner def ko centre d'isolement et de traitement mais il faut am accompagnement accompagnement bi mooy liggéey war fort. C'est une foofa suñ ko réquisitionné woon su ko état réquisitionné woon su ko réquisitionné ba pare nit ñi war ñu par exemple ben, ben, ben, foo par exemple ben, hélicoptère de fa mën war ensuite lu mel les ambulances on ne sait jamais dans la vie Ce fait que nous, par exemple un cas par exemple euh, suspect nous avons ko ambulance andi ko hôpital mais ce cas suspect là ce fait que l'ordre ko mais ambulance bon, nga ko donc war nañu aussi jël ay distribution ci ay nous hélicoptère boo xam ne hélicoptère bi day taxaw rek leneen lu xew lu loolu du jóg mais saa yu amee un cas suspect mu jóg mais imaginer war nañ am aussi un euh, euh, euh, couloir boo xam ne dañuy xam ne par exemple de de de Ndamatou à ci ci ak ci dispensaire boobu de par exemple Mablo Feuzeuli ci dispensaire boobu dafay am ab couloir. boo xëy ni saa yu suste amee. mu am benn accès libre bu nga xam ne ko fréquenté par urgence. nga xëy ni police yi dañ a accompagner même avec man daal je pense que ne loolu mooy mooy li nga la jàpp dañuy ñaan nag te rafet nañ jot ci ne dara du ñëw mais nee nañu prévenir vaut mieux que guérir. kon est-ce que jotut les les responsables sanitaires wax réellement dëgg gi nga xam ne mooy menacer la population. waaw mais xam nga xam nga xëy na menace sax accès mais peut-être menace accès mais sensibiliser la population de Touba même si un gan ci biir kër gi gan gi par exemple yalla yàlla tere euh, di metti wala mu sibbiru wala yu demee automatiquement ñu mëna xam ah kii parce que Touba xat na xataay bo xamni nit mën naa ñëw sax sibbiru wala yu demee noonu mhm. ba ba nekk ci kër ba ci lendemain c'est tëdd tëdd génn kër gi donc il faut une sensibilisation loolu mënut a ñàkk kenn japp na dana ñëw mais il faut que ñu sensibiliser population Touba bi ba ñu xam lu mëna xew nañ xam kan ci ban numéro kan lañ mëna adresser man dal wax dëgg ministère de la santé maa ngi koy gërëm di ko ci effort yi nga xam ni def na ko ci Ebola mais cette fois-ci discours bi nga xam ne def na ko Touba daal su ma soobee mu dox mu gën a mu gën a mu gën a xóotal discours bi fii nag dafa nekk fu sensible foo xam ne nii xóotal fi parce que moom ci moom ci boppam ginnaaw yàlla mooy garantie la santé de de de tous ah, ah, jërëjëf ah, sëriñ bi am na benn fu ñu xam ne bëgg nañu fa def benn taxaw seetlu gis nañ ne que garage bi nga xam ne mu nekkoon garage su Dakar barki démb lañ leen yëkkati te ñu gis ne que parce que loolu ñu wax cadre de vie amu fa parce que magasin yi parewul éclairage bi parewul euh, seen amuñu toilette mur de clôture amu fa est-ce que mesures yu mel noonu les décideurs yi nga xam ne ñoo nekk les responsables communaux bu njëj jël yooyu est-ce que mënuñu tenir en compte wala ñu xaar ba mu ñor ñu soog ko def. waaw xam nga foofu itam bi dama yaakaar ne dafa am benn dafa am dëkk dafa mënut am ñaari gestion gis nga garage bu toll ne garage Dakar bi nit mënut a jël gestion bi di ko gérer ba pare commune bi génne ci loxo loolu mënut a nekk c'est faux. loolu tax nag gis nga commune dafa am commission de transport gis nga commission de transport bi ah. Mhm. yàlla dafa dogal ne moom ci boppam mënut a génn ci comme mënut a génn ci gérance euh, foofu. Mhm. pourquoi parce que je me je me dis toujours que ne mais ñun suñu amee quelque chose à rendre à demander des comptes en dollars Abdou Lahad Ka lañ koy laaj kon yaakaar naa ne Abdou Lahad Ka moom ci boppam moom la ñu war a laaj commune bi lan la doon ci garage bi lan la ci non ba pare. est-ce que commune bi moy gérer garage bi wala dafa am un privé bu gérer garage bi. su fekké dafa am un privé bu gérer garage même si c'est un ami de Serigne Mbacké je pense que né loolu wut mbaba dafa wara dugg ci biir gestion day dugg ci ci biir kon limay wax toujours rek. dafa am ay nit ñu fi nekk ci dëkk bi ñu am solo ñoo xam ne nii bi ñuy former commune bi dañu leen a waroon a boole ci biir.

mi nga xam ne ni par exemple ci commune bi la bokk ne ko par exemple ñëwal nga jël yow par exemple. Euh, commission hydraulique kooku kooku kooku kooku kooku par force y aura un combat combat mënut ñàkk foofu parce que kii daf ko am de droit. kii am ko de devoir. ndax devoir bi mooy sëñ bi moo ne ko defal kee sëñ commune bi moo ne ko defal mais ñaar ñoom nu ñuy defee. parce que kii dafa am de droit kii am de devoir ki dafa am devoir ndigal liko ko bi jox lako ko mako c'est un devoir que sëñ bi sëñ Cheikh ali def ko mi ki droit moko may mu gérer ko. kon suñ la déggee bu baax faux pas bi mi ngi tambalé ci biñu ñu concocté concocté liste bi. bien sûr parce que bi jël liste bi nañ jël par exemple Cheikh ali dugul ko ci euh, par exemple conseiller Touba. suñ demee bi nga xamni ne ñoo ngi joxe hydraulique ñu jox ko par exemple commission hydraulique mu jiite wu su boobaa yaakaar naa ci lay gën a mën mais ko noo jël nit koo xam ne nekkul conseiller jox ko ab liggéey mu di ko liggéey nga jël koo xam ne il est conseiller ba pare ñoom ñaar taxawaay yi parce que su fekkoon tey nga koo jox am sëñ Mbàkke c'est pas grave mais soo ko joxee ñaar ñoo xam ne ñoo yem taxawaay ci ci ci ci ci yoon wi dafay compliqué loolu ay problème lay indi loolu aussi moo ñëw ci garage bi garage bi ki ko yor ñëw ma waru koo yor parce que man du ma koy joxe ndigal man kuy constaté rek mais bi ñu demee ba xam ne par exemple ki ñu war a yor garage bi dañ ko moo ko war a yor nañ ko dugal ci liste conseil suñ ko dugalee ci liste conseil ba pare jox ko par exemple commission transport ba pare dañ ko garage bi mais léegi ñaari nit ñu ñuy nekk ci benn commune kii di gérer li kii di gérer li ci kenn ko ne am trois conseil loolu ay e la lay que li ma lay wax ni man maa ko témoin tey li ma lay nett li man maa ko ñëw naa police tey fekk fa benn ka bu xam bu xaw a doy waar parce que ko doon ñu dàq ko ba jàpp ko mais foofu mënoon na catastrophe mënoon na fa am parce que arrêt préfectoral je j'en suis très d'accord mais arrêt préfectoral soo amee ba pare police ci boppam mooy ki nga xam ne arrêt moom moo ko a appliqué moo ci veille moo ci war a veille mais gis nga nit koo xam ne par exemple ab civil nga mënoo corriger un léegi mën nañ képp koo xam ne par exemple yàlla dogal na jël par exemple maraudage bi numéro bi jox ko par exemple police police itam mu am toujours koo xam ne loolu dana ciy ba par exemple su fekkee da ngaa maraude ñu jël sa numéro la kojee euh, mbàkke jàpp ñu la soo demee ba Ndiarème nga fekk fa police bay monté ca euh, euh, raay ba mu mu contrôlé la wàññi la na dellu Touba loolu suñ ko def problème dana suñu bàyyee nit ñi kenn ku nekk di fajal sa bopp de tout retard catastrophe dana am. jërëjëf sëriñ bi ci kàddu leeral yooyu kon duñ def lu dul lu euh, ñëw ci njeexantalu émission bi nga jox ñëw mot de la fin. waaw mot la fin mooy di sant yàlla di leen gërëm yi nit euh, vraiment ci euh, accueil bi nga xam ne jamono yene yéen ñu koy accueillir di ñu dimbali te itam yàlla xam na ne man ne mosuma fee ñëw ba ba ba leen ko jox te léegi nag sax yéen ngeen ngeen jox ma Sprite yaakaar naa li moom su ngeen ci continuer euh, euh, euh, ngeen continuer ci nii moom yaa naa ci kanam tuuti yaakaar naa da ngeen tëj boutique ah da ngeen fexe ba gaa yi di leen sponsorisé maa ngi def aussi appel à Abdoulaye Ka mi nga xam ne nii c'est un vraiment nit ku baax la itam mu jàpp ci ndax itam nag na yéen a ngi jàppale dëkk bi kuy jàppale dëkk bi nag dañu leen war a jàppale te su leen jàppalee pare itam nag mooy mu ñëw jàppale ma ah. jërëjëf ci kàddu kon ñoo ko déggandoo ñi ngi àndoon ak yéen seen émission yeewu yeewi ñu amoon gan Serigne Mbacké Mara président association sans frontières Mourides info ak leerlu point com ñoo leen jox dig daje ba beneen yoon jaa ngeen